Assalamualaikum wa Sénégal asalaamualeykum wa monde bi image bi ngeen di setan mu nga amee di école bo xamni ni fay jàngale ya. lepp lu jëm ci mbiru box muy bërëb bo xamni ni ma nga ci Kër Massar tudd Espoir bu Kër Massar ñi ngeen gis yëpp ay ndaw yoo xam ne pourtant ñoom ñi ñëpp dañuy dem da boxe Sénégal Afrique Europe mais dafa am histoire bu yéem bu am ci centre bi muy espoir bu Kër Massar ki leen ngeen di seen mooy seen chef seen patron seen course carrière lépp daf ko def ci boxe mais Sénégal ni bindoo lii ñu def nii tey seen moroom yi koy def ca Europe mbaa ci Afrique mbaa yeneen dëkk ñëpp tekki nañ teraanga bu ne am nañ ko ci mooy dëkk yooyu de dañ fonk seen sportif fonk seeni doom ci bépp discipline bu ñu mën a yëngu Sénégal de mën na ko def ay moo leen waxoon ñii bu ñu yéegee ci kaw rim nga leen di seetaan télé mu rafet lool ñuy xeexal drapeau national bu Sénégal bu ñu wàccee kenn ku ne ci ñoom fédération ran la jox lu toll ci juróomi téeméer maanaam deux mille cinq cent francs CFA te du ñoom kese de muy ci ay discipline ñuy bëri yoo xamee ni ak ak yàlla bi nga waroon jox kenn jox leen ko fii ñu nekk nii nekk. di fi explorer benn école la boo xam ne dana ko abandonné parce que ndox mi moo ko nangu woon jàmbaar jee di koroma jël ko di ci taxale ko xool sal ni mel xam ne ay propre moyen lay demee moo ne état mënoon na ko dimbali te dimbali ko moo ne maire waroon na dimbali te dimbali ko te pourtant moo ne de mu ngi dugal loxoom ci développement wu dëkk bi ndax lii xale yi def daanaka sport bu am solo la ci monde bi ndax Mike Tyson Olufin ak ñu neen ñu bari ñu doon xam ñoo xam ne tey seen lépp ci lañ ko amee ba pare tamit sëggil seen doomi réew waaye senegal day dëkk boo xam ne ni muy reyee gàncax di rey baykat noonu lay reyee ay sportif ñii nag danoo soxla ndimbal soxla ku leen dimbali ku leen taxaw ci ay gan ci lépp loo xamee ni war nañ ko mën a am ngir gën a góorgóorlu ci seen wàllu box bi ñuy def ki nga xam nekk moom moo leen jiite saa su ne leneen lu muy am feneen lay indi fii gis ngeen buum mi baaxul gis na xale yi dañu sol ku ko xool xam ne du ay yére box waaye dañuy dem ca fëgg jaay ba tànn fa jëndal seen bopp lañ war a jënd góorgóorlu dajale moo ne doomi senegal ak noo neex a jàppale ndax dëkk boo xam ni jeunesse bi bëgg nañu dëkk boo xam ni ndaw ñi même bu leen état joxul ñoo jël seen propre moyen defal seen bopp même bu leen état dimbaliwul ñoo jël seen propre moyen defal seen bopp kon lii wax dëgg yàlla lu ndaw yaram la te itam lu tiis la école lañ nekk bu nu abandonné ñu defaraat parentère ya tabaxaat ko di ci góorgóorlu seen kémt lay kattan ngir rek métier bi nga xam ne moom la ñuy def métier wu jëm ci kanam moo ne bu ñuy génn drapeau Sénégal la ñuy yor moo ne bu ñu leen di rappeler partout dans le monde doomi Sénégal lañ leen di askan le ñuy xeexal drapeau Sénégal mais ndeke ñoom ñi amuñ dara ndeke ñoom ñii mënuñu dara ci liñ nekk kenn du leen dimbali xale bii ngeen di seen di lamin fay sa yére bu bule bii ngeen di seen di combat mooy doomu kërsu bi xale bu mën a la koo xam ne tey tubaab a ngi ne sew di ko wëri ay bu ko amoon def ko champion du monde mais ndeysaan nii lay nekkee rek ba mujj fi mujj ci ay batiment yu ñu abandonné ci ay école yu ñu abandonné ngir dajale ci ay doom ay moroomam ay góor ay jeunes comme moom di leen jàngal box boo xam ne ndeysaan suba donc kon tey metti lool ci moom bàyyi ma ngi taxaw ne le quarante ans mu def ko ci liggéey bi tey gis na fi mujjee doom baa ngi nii taxaw à l'âge de de cinq na ci la njëkk a takk gas ba gants yi takk nii di box gis na ko ni muy déplacé ni muy songé adversaire am te moo ko ëpp ni muy muy dóoree ni muy accès dóoree ni muy ni muy def nga xam ne kii deretam box la moo ne état maa ngay financé ay xale yu tekkiwul dara ci musique ci fo ci ay woy ci ay lépp ñu ñàkk fayda te bàyyi ay doomi réewam yoo xam ne dañu tàggat seen bopp ci mbir mu am solo waaye gis nga leen gis nga saako bi ñuy dóor daana ko rek morso la bo xam ndaysan dana ko takk rek da ci suuf di dóor ndaysan am jëm lool fong gëm ko lool melni ku nekk biir Amérique wala ku nekk feneen ndaysan ñu ngi góorgóorlu li rek war na tax jiitu réew mi ak jitu réew mi yërëm seen askan yërëm sen xeet yërëm sen i mbokk seen dëkkandoo xam ngeen ni lii metti na xam ngeen ni lii image la boo xam ne te du ñuy kese am na ñeneen ñu yëngu ci leneen lu dul lii mën ko lool mais dañ ciy mujj torox te moom ci yeneen dëkk de ay nitam koy def da ca tekki di defal pel boobu dëkk lépp doo gis ci Afrique ci Sénégal ñu koy fawee rek ci Europe ni danga ko cay tekki am ci ndam bu nekk kon wax dëgg yàlla war waruñoo jàppale ñi nga xam ñoom ñooy espoir bu Kër Massar nga xam ni ay ndaw lañu di yëngu ci mbiru box lu amul ci band yëpp amul fenn ñëpp a dem ci làmb ñëpp dem ci musique ñëpp a dem ci théâtre ñëpp dem ci ay caaxaan ñoom ñu concentré wu pour défendre couleur box bii te moo ne de fédération bu leen soxlaa da leen di jël yóbbu leen yóbbu leen ay combat ci turu réew mi te kenn ku ne ci ñoom bu wàccee. juróomi téeméer la ko fédération du jox kon wax dëgg yàlla muy lu ñaaw loo xam ni ñëpp a ngi koy ñaaw kon ñu ngi woo ñëpp nag képp ku la mën a dimbali ci ay gants ci ay eh, eh, eh, maillot yu ñu mën a entraîner ku la mën a dimbali ci situation yu nekk ñu génn ci nekk ci bonne condition ndax ku doon xool nu ñuy boxoo nu ñuy dóoree ambition bi ñu am détermination bu ñu am rek nga xam ne ñi bëgg nañu mais amuñu ku leen jàppale amuñu ku leen di dimbale kii di dóor ne gis ngeen ko kii mooy doomu kottu bi mais ni muy dóor yi nga xam ni xale bi vraiment mën na li muy def la façon farabam ambition am détermination am vision bi mu am buy dóor buy xool fi muy dóor xam ci yan partie corps lay dóor ci nit ci at bi mu am nekk champion bu ndaw. soxla trop ku ko dimbali nga xam ne ëllëgi mën na indil baax lu ne ci kaw suuf mais dara ñi rek lay mujj dóor saako ba mujj faatu ci yàlla